Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xamee ne rek hospitalisé woon na fële ci hôpital principal mu daal di fay entré woon rek daal di amal ab grève de la faim boo xam ne mi ngi toll ci 17 jours li ci doy waar nag mooy Ousmane Sonko fi mu toll nii daal. nouvelle bi ñu dal amaat ci moom daal dinay doon loo xam ne naqari nañu baree bari xoolee rek ci nga xam ne fa la nekk jamono yi daal dinañ ko fay génne daal di ko delloowaat ca prison bu euh, prison bu Sébikotane euh, bu ñu sukkandikoo ci euh, Dakar Matin moom moo joxee boobale source ma ngay xam ne ne Ousmane Sonko ginnaaw rek ba mu nekkee ci hôpital principal fan yi yëpp rek ngir wér-gu-yaramam bu sooxee ñu koy faj fii ñuy wax ak yéen ñi kon daal dinañ koy génne rek li nga xam ne mooy hôpital principal boobu daal di koy yóbbuwaat fële ca kaso bu Sébikotane mu doon rek lu doy waar loo xam askan wu Sénégal ñi ngi euh, seetaan Ousmane Sonko lan moo ko nar a dal ndegam hôpital ba rek la mënul amee jàmm kon bu demee fële ca prison ba du continuer di lekk ndax bakkanu Ousmane Sonko mi ngi ci xottu gerte fii ñuy wax ak yéen dal kon Ousmane Sonko jëlee nañ ko ci hôpital principal bi daal di koy yóbbuwaat fi nga xam ne rek moom mooy prison bu Sébikotane ba source bi nag ñu ngi ko jëlee ci fi nga xam ne rek moom mooy Dakar matin